du ma ko ah, mu tàng ma micro ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ni ngeen di àndee ak ñun ñu ngi leen di fàttali rek ñu ngi ci nga xam ne moom mooy cybercriminalité ba tey ndax nak audition bi mi ngi continuer ba léegi ñeel ki nga xam ne moom mooy euh, Bougane Gueye Dany mi nga xam ne moom la ñu déglu depuis 10 nag mi ngi fii nga xam ne moom moo ci euh, bërëb bile ñu koy déglu gis nga nag euh, fii tàngoon na lool ci ñi nga xam ne ñooy ay militants euh, yi nga xam ne ñoo féetee ci wàll Guinée ñoom nag ñi nga xam ne ñoom ñooy les militants di jàppante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw di jàppal tànk ñi nga xam ne moom mooy soo leen ko deful direct nag waxuma. c'est bon nous sommes en direct voilà ñu taaxirlu léegi ndax ki ñuy waaj a déglu nag moom mooy Adama Fall euh, moom nag moom mooy waaj a wax léegi jëmale ci li nga xam ne moom mooy situation bi la euh, ñeel ki nga xam ne moom mooy euh, Bougane Gueye Dany li nga xam ne moom mooy njiital gëm sa bopp mi nga xam ne tey dañ ko convier mu daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy ci mu daal di ñëw tontu fi nga xam ne moom mooy ci bërëb bi la waa kër voilà ñu taaxirlu rek de moment loolu ñu daal di tàmbali déglu ki nga xam ne moom mooy Adama Faye fii nga xam ne Adama Fall plutôt ci division spéciale de la cybercriminalité euh, tey moom njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany war a wuy si mbooloo mu takku nag daal di ko gunge mu jógee foofu nga xam ne euh, moom mooy euh, cité kër góor gi ñëw fi nga xam ne moom mooy fii ci division division spéciale de la cybersécurité moom nag euh, si na fii ba mu si nag amoon na li nga xam ne mooy ay jàppante ndax nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy sécurité bi dañoo bëggoon a dugg ci bii ñu daal di leen koy lànkal boobaak léegi itam yëf yi xaw a tàng lool Omar fay voilà. waaw ah, c'est-à-dire premier ministre Ousmane Sonko warul wax chiffre kenn di laam e chiffre am chiffre léegi ko waxati ñu jàppal non yéeman c'est du jamais vu. mais le cas de Bougane non mais xam nga jàmbaar dañuy waxante dëgg quoi ñoom liñ fi wax yëpp buñ leen ko toppee woon kon ken waxatu ko ku xamante ni ne guerrier nga daan taxaw di défier Macky Sall au pouvoir ak gassa gassa tey nga nekk au pouvoir war nga mën na def ak ñoom gassa gassa sans utiliser les moyens de l'État tu peux ne pas utiliser les moyens de l'État donc tey Sonko xam na lan mooy état xam na lan mooy force état man dama yaakaar yaakaaroon ne moom buy xeex ak ñi politiquement lay xeex ñoom mais passa ça mais nag ay góor yàlla la ko séqal dañ la woon teg toog suñu yoon newul ci ñoom li ñuy def mais nag na xam ne ñun nous avons un cursus dans ce pays de Abdou Diouf à Ablaye Wade et à Macky Sall xam nit ñi xam nañu de ñoom xam nañu bu ñuy door a judd dañu xeex ab Abdou Diouf nekk fi ñu xeex ab Abdoulaye Wade nekk fi ñu xeex Macky Sall nekk fi ba toll fi ñu toll donc li am ni nit ñi duñ ko nangu de. da jàpp ni. Euh, duñ ko nangu de inti waaye non inti waxuma ne on ne peut pas nous intimider barke Cheikh Rafal mm. personne ne peut nous intimider réew mi dañ ko bokk lu ñu gis lu dul yoon dañ koy wax lu ñu gis lu yoon nag ñu wax ko waaye lu gis lu yoon dañ koy wax léegi nag ñii toogoon sax seen yoon newu si dañ si jóg. cest à ñii toogoon mii man mii ñeneen ñi nga xamante ni dañuy toog rek di liggéey Sénégal te yàlla tax dañ ciy dugg parce que du ñu nangu lu ñu nangul ko woon ci Abla Abdou Diouf nangul ko Ablaye Wade nangul ñu ko Macky Sall di ko nangul di ko nangul Sonko loolu c'est pas possible. en quoi Ousmane Sonko est mêlé dans cette affaire. quoi Ousmane Sonko ci lan la mêlé wu ci mbir mais xanaa déggoo lu mu conférence de presse am il a clairement que je n'accepte pas que ñuy utiliser ay chiffres ñuy utiliser wul il l'a non mais il l'a dit xam nga jàmbaar xam nga ñun xam nañ état nag ñun xam nañ état comment comment ça se passe mais yooyu yëpp amul ñaari nit rek la ñuy xaar pour xool quel sera le comportement le ministre de la justice et le procureur ak li leen Sénégal waxal yëpp ñu ngi leen di xaar ci dossier yi non mais ñu ngi xaar ñun ñi xam nañu ñu ngi toog di xaar. nga ni Bougane day déranger. <laughs> mais ñoom daal saa waay. loolu la ñu wax quoi depuis suba ak léegi les militants que Bougane dafay. waay <laughs> mais régime ñun ñun ci dëgg lañ nekk. politique bi c'est autre chose mais ci dëgg lañ nekk. ñu ngi toog di xaar. comment ça va se bëgg a jël logique. mais déclaration wu lan la logique Sonko logique Zuma Samba moo ci yemale. c'est pas ça qui est important ce qui est important mooy réew mi am na fu mu toll woon ñëpp di ko xeex ñëpp di ko ne du ñu yoon. tey nga ñëw ci nguur gi demaguñu fenn tu convoques autant de personnes tu es en train d'emprisonner des gens à ce niveau sans des chefs d'inculpation valables il faut pas créer des chefs d'inculpation pour emprisonner les gens et c'est ça le danger. le cas de Kader non Kader juum na. on le reconnaît. li mu wax waru ko wax loolu d'accord nañ ci. mais nag yërmande am na. nit mën na juum defaraat waxam dëgg-dëgg dañuy wax te yàlla tax. mais aussi bu ñu fàtte ne Guy Marius Sagna am na lu am na policier bu mu boole ministre de l' intérieur rafetlu lii Guy Marius Sagna def gis ku nekkul yoon mu mu boole ko waaw donc moom de certes Kader am na lu mu wax ñaaw ñaawlu nañ ko mais li lii Guy Marius Sagna wax nag léegi lu ñu ñu si wax donc man je pense que am na yenn problème yoo xamante ni jaru ko on a des urgences urgence yi mooy situation réew mi Nous vivons un cancer économique dans ce pays actuellement. Personne ne sait ce qu'il doit faire. Soyons sérieux. Et maintenant, nous devons top. Il y a une urgence, un problème réuni. Nous devons régler les détails. Je ne vais pas venant ce régime-là. Mais, si nous savons réuni, nous devons. Et nous devons Dieu. C'est-à-dire que si nous nous réussir. Mais ce qui nous réussite, c'est problème problèmes qui nous Et c'est dommage pour ce pays. ci an Fall ñu ne Adama euh, après jour pour jour ku wax ñu jàpp tëj ràpp condamné ci la chanson boobu génnoon jour pour jour ñu ñu jàpp ay doomu aadama ci seeni délit ci seeni kaddu convoqué leen. ci loo xamante ni jàppoon nañ ni ak quatre-vingts personnes yu ñàkk seeni bakkan jàppoon nañ ni day jeex du dëgg parce que dafa am ñoo xamante ni dañoo ñàkk seen bëkkan ci démocratie Sénégal takk ci fa mu nekk quatre-vingts personnes ñoo dee pour la liberté d'expression c'est pas pour la liberté d'une personne mais c'est pour la liberté des individus maintenant pensons à ces quatre-vingts personnes là parce que démocratie nga falu war a andi ce qu'on appelle ce une transformation systémique ne doit pas être une révolution régressive parce que que soit xam nga li fi ne c'est du Macky pire que Macky déglul bu baax li mu la li fi ne nii c'est du Macky pire que Macky parce que nu sommes dans la régression progressive La régression progressive signifie quoi Un acteur politique qui joue sa carrière politique. dafa am acteur politique buy jouer carrière politique am à travers une élection législative